bagage dafa seer di te dañuy fay wat foo ko fayee KMC laay dem KMC waaw ana certificat bi déedéet aw ma certificat de fii ngeen réeree mbir nag gis nga vaat fa ngay dem jiyaaree registre ko fa boo registre ba pare bu ay caa ñu yor la sa certificat nga aj ko sa bitik ku dikk xam ne registre nga vaat dégg nga ñu bëri nag fa ñoom bu boo bitik yi lu dikk yokku seen prix yi ku dikk ñu naan la léegi vaat baa mbir mi seer dégg lu ko dalee ni ceeb diwlin sukkur éducation farine mbérum jàng mi fay school fees yëpp yëpp benn waru see fay vaat dégg nga ah. ba pare vaat askan eh, réew mi lépp luñ dugal si askan bi rek luy njëriñ askan bi waaye du leen lor dégg nga bari nga si morom nag sa morom yi dañoo ñëw rek am seen bitig yu ndaw rek bugg a yokk pire yi rek ne vaat vaat vaat yàq ngeen turi vaat te vaat jagal réew mi moo ko taxoon a dikk dégg nga te vaat bi Afrique sow jante yëpp ñoo ko dugal dégg nga West Africa yëpp te 15 pour lañ la fayee moo tax na ñu leeral nit ñi ne VAT moo remplacé sales tax te boo fayee VAT ba weer wi dee nga war a delluwaat ne fa ngay fayaat lépp loo xam ne dépense nga sa business bi te nga fay si VAT fañ koy xayma delloowaat la xam nga loolu neex na. waaw sales tax buñ la doon delloo dara waaye VAT fañ lay delloo dégg nga te yow mi sax sa cantine gi waruloo charge VAT dégg nga yow foofu fu ñoo fayee VAT sax. KMC laay dégg. VAT xam nga fu ñu ko fayee benn place dong lañ ko fayee mooy jiyaaree. Gambia Revenue Authority. mom kay xam nga rek dama doon wax lu ma neex nii rek waaye. bu fekkee ne am na ku fee dina da nga war a fay vaat warula fay vaat demal jiyaaree ñu foo nga war a fay vaat. man kay dafa defoon stratégie bu ñuy business rek. ngeen baxoo nag. <laughs> ngeen baxoo nag ndax képp ku si jiyaaree téye yoon dina tegu sa kaw. jërëjëf jërëjëf waaye du amul benn problème. amul benn problème. waaw kay léegi kon dinaa ko paak yëpp man ko indi ga soxna sax wala bi ko ju ne baax koy baax ah génne nga kañ baax ko nga wax sa weneen morom yi nag waaw léegi uy <laughs> ma bu soo ñëwee ma fay waaw dinaa ko indi nga wax ko sa yeneen nga waaw sa biir bi rëy nag <laughs> déedéet wala man maa ngi nekk fii waat waat xaw sax luy waat ah dee da xam da ngay waar gaa yee koy wax kat loo wax yi dafay waat man ba fi day am naa chance dinaa ko neexal bu ma wàccee bu soobee yàlla daa yi daa. Discover the smiling coast of Africa. من والجوع ونقص من الثمرات وبشر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنكم بشيء